di leen ñaan ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ak taysir defal ñu koor gu barkeel koor gu ñu nangu yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay si sallallahu alayhi wa sallam dikkaat nañ ak yéen ci suñu tafsir bi ñu doon def baaxoo def ci waxtu yi ci fii ci juma ankapa di seen mbokk seen xarit seen taalibe imaam Umar Diallo di leen ko defal euh, ci waxtu wi yàlla na yàlla def ci ni dëgg ak topp euh, su ko defee ñu delluwaat ci téere bi ñu ngi woon ci suuratul baqara ci <clears throat> yàlla wa nisaaukum harsun lakum fa atu xarsakum anne yàlla ne nisaaukum seen soxna yi xarsun lakum seen mbéy lañu fa na ngeen dikki xarsakum seen mbéy seeni tool anne siitum nu leen neexe waxoon naa ko min qiyaamin wa ne su neexee ngeen ànd seen soxna ngeen taxaw ngeen di am rapport ngeen toog am rapport ngeen tëdd di am rapport wa iqbaalin ngeen jàkkaarloo toog jàkkaarloo wala taxaw jàkkaarloo dina am rapport wa idbaarin ndaw si wone ginnaaw yow nga nekk ci eh, ginnaawam lépp dagan na waaye ala kulli xaal na na dem fi charie santaane mu dem fa mooy kanam gi waaye ginnaaw gi rek may fi muy génne fi muy fi muy demee cabine foofu la sari nanguwul nga def jël sa pay def ko foofu waaye li ci de ci ci wàllu position loolu yàlla euh, waxu ci dara dégg position bu la neex nga def loolu position la waaye da nga def fi foo xam ne defu na dégg wa qaddimu na ngeen jiital li anfusikum ñeel seen bopp al amalu saalih jëf ju yiw ka tasmiyati lu mel ni wax bismillahi balaa ngay ak ñëw ci moom indal jimaa bi ngay ànd ak moom lépp loo xam ne danga koy def na nga ci jiital tuuru yàlla na ngay wax bismillah walla nga wax allahumma jannibni sheytaan bismillah allahumma ni sheytaan wa jannibi sheytaane ma razaqtani yàlla nag ma soreel seytaane wal nga sorel seytaan lépp loo xam ne wërsëgal nga bëgg su ko defee yàlla dina la dimbali ba doom yi nga xam ne dañu dañu dañu am àndandoo wala da nga am ay rab wala seytaane du jaxasoog sa liggéey nga xam ne su ëllëgee nga am doom yoo xam ne dañu daanu rab walla yu mel noonu fekk bi ngay bi ngay bi ngay ànd ak moom léemu wo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne kullu amalin zibaalin لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر بيب جيف يو ام سولو بين كوي تامبالي واخو بسم الله الرحمن الرحيم جيف جي امول سولو جيف جي دا فا نجاد جيف جي باخول كون سيلو ام سولو لا باسكو دا فا ام ياكار او دولا دو بانيه بيني بين تي سينتو واي دا فا ام ياكار دا ملني كو خامني دا فاي جي كوي جي ها آه؟ dafa yaakaare góob du noonu waaye kii tam kii si ak sax soxnaam dafa yaakaare am doom du noonu kon de yaa ngi ji kon ñaanal yàlla yàlla musal la ci seetaan musal la ci waaye am na ñoo xam ne dañu ñëw rek tàmbali waxoon naa ko ci jarul mu ciy delluwaat ci ndax mu ngi ci kaset bali kon wa aatu wa aatu xarsakum fa aatu siitu wa qaddimu am anfusikum te wattaqullaha ngeen ragal yàlla fi amrihi ci ay ndigalam wa nahyihi ak tereem xam nga lan mooy ragal yàlla suñ la laajee mooy lan mooy ragal yàlla dangay wax ne jëf li yàlla digle bàyyi li yàlla tere c'est tout lii rek la mooy ndigal yàlla lépp lu yàlla digle li nga mën nga def ko li yàlla tere nga bàyyi lépp hmm? gis nga nit ñi rawantewuñu ragal yàlla ñi eh, ci nit ñi rawantewuñu ci def li yàlla digle xam fu ñu fu ñu rawante bàyyi li yàlla tere soo bàyyee li yàlla di tere ba mu jeex daanaka nga nekk waliyu foofu nag la neen ñi rawante bàyyi fen bàyyi jëw bàyyi réew rëy bàyyi euh, ngistal bàyyi fen bàyyi njaalo bàyyi tooñ bàyyi bàyyi kii bàyyi julli bañe bañe bañe bañe bañe bañe yéexe julli ci waxtu waxtu yi nga war a julli ak yooyu yépp hmm? li yàlla tere nga bàyyi ko ba mu jeex takk li mu diglee nag nga def ci li ma li nga mën loolu mooy ragal yàlla leneen amul leneen loo def mun na am ngistal dugg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jullit bi amoon yéene naafila téeméeri rakk bi ngay tëdd bi ngay tëdd yaakaar nga kii yaa am nga am nga am nga yéene mi ngay tëdd am nga yéene julli téeméer rakk la kenn yëgul yàlla dogal nga biddanti ni xëy nag di ko naqarlu ci sa bopp si vraiment métti na ma dem lii laa waroon kii nga koy wax ak bopp sa bopp mu ne yàlla nee na moo ma gënal fuuf koo xam ne dafa fanaane déedéet dafa ne koo xam ne dafa yéene woon julli ñaari rakk la far mu biddante ba ba ba julliwu ko mu xëy di ko métitlu moo ma gënal jaam boo xam ne dafa fanaane julli téeméeri rakk xëy di ko damu hmm? léegi-léegi nga wax ak nit ma ne si man quatre fekk na mu jóg def naa lii def naa jaan def naa samay ñaan def naa samay lawra def naa ku la laaj ku laaj man li ma def wax naa la hmm? walla man ajuma bu nekk damay wor wala kii bu nekk damay woor altine bu nekk damay woor nisu saaba ku la ko laaj koo koy defal koo ko defal kon su ko defee am na jëf yoo xam ne ngistal la ko yàq te ngistal dafa bokk ci bakkaar yu mag yi soo demee ci laxdari dee lay limal bàkkaar yu mag gi bi ci jiitu mooy fen fen ñeneen yoon bi sallallahu alayhi wasallam nee benn fen moo gën a garaaw fanweer njaalu benn fen te ñun defuñu ko muy dara ne fen di dem rek fen rek

dana ko nettali saf-safal saf-safal def ci kaani jimboo ko ba ngay yaakaar ne du événement bi nga jóge moom lay wax te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayatul munafiqin salaasatun ayatul munafiqin salaasatun mandargay naafeq màndargay naafiq mu ne ñett la yokk nañ ci sa benn am na ñu wax ne yonent bi ko wax mu nekk ñeent mu ne benn isa hadasa kéziba wala ida hadasa kéziba suy waxtaan dafay fen nit koo xam ne waxtaan wi lu mu neex neex nga boole ci fen am ñoo xam ne balaa seen waxtaan neex ñu boole ci fenn yoo xam ne ah dañuy yëngal arash loolu baaxul koo ko gis mu koy def lu mu baax baax baax baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na naafiq la wa isa waad beneen bi wa isa waad xalaf soo ko joxee rendez-vous

da di joxante rendez mu bàyyi ba heure bi jot mu jël téléphone ne na dama am ay gan waay ma bëggoon naa ñëw quoi mais dama am ay gan ay te fekk kenn wu fa bëgg fausé rendez-vous rendez-vous avant rendez avant rendez-vous la après rendez après rendez la waaye di ngay xamee nit ku baax mooy koo xam ne dafa fo du fausser rendez bu mukk waaw soo naree fausser soo ma nee damay ñëw dañu heure sangam ma d'accord da nga ñëw heure sangam ñu ñëpp d'accord si yow su amee ay gàllankoor yow yaay njëkk woote nga ne ko ah man de waxoon naa dinaa ñëw kii mais dama am gàllankoor duma mën a ñëw walla heure sang nañ ko pousse ba heure sangam parce que dama am ay gàllankoor mais bàyyi ba waxtu bi jot nga soog a jóge sa kër wala soo commencé di jàpp walla ko soo soo commencé di sangu sérieux wu parce que balaa ngay àgg ci moom day fekk heure bi passé te heure ah après rendez-vous du rendez koo gis mu koy def naafiq la bu yeba nga nekk imam bi wala nga nekk délégué de quartier wala nga nekk ku mu doon fekk yaa ngi fausse rendez-vous naafiq nga te suñu paree moo wax la naafiq fu muy dem lan fan mooy palaasam xanaa wax naa ñaar mu des ñetteel bi ñetteel bi isaatu mina xaana isaatu mina xaana suñ ko wóolu ba dénk ko dara da koy luubal suñ ko dénki dara ba ñu ko dénkoon soxlaat ko day fekk mu luubal ko kooku naafiq la bu ñeenteel bi mooy isa xaasama fajara suy xulo dafay kàccoor da ci sos loo xam ne ah waaw waaw ci dana la sosal boo xam ne su ngeen di xulo mu sosal lu ne weŋ boo xam ne yoo xamoo fa sax man fu mu jógee <clears throat> léegi-léegi ñu ne xulo mbalit la rek loo sànni kii dañu waxul dëgg loo xuloog nit waxal ko lu mu def rek waxal ko lu am rek waxal ko jikkoom waaye xuloo bu mu tax taxee nga waxal ko loo xam ne nekkul ci moom yow yooyu naafiq nga <clears throat> màndargay ñeent yi ñeent màndarga yi mooy màndargay naafiq ti yàlla nee na yéeféer yi dama leen di dugal safar du noonu waaye naafiq mu ne inna al munafiqina fi darkil asfali min an naar naafiq yi bu dee bu dee ajjana ay ajjana ay kal la ay kal am aj kii safar astafurlah safar laay wax ajjana dafa am ay darajaat premier étage deuxième étage troisième étage ay daraja la ay niveau mooy ajjana firdaws illiyin xul di ay yooyu dafa mel ay ay ay étape voilà comme deux étoiles trois étoiles ay yooyu cinq étoiles ay xam nga yooyu ajana noonu la mel waaye safar itam dafa am darakaat darakaat ay kal kal kal bi gën a fee bi see féete ci suuf nag foofu la naafiq yi jëm yàlla nañu yàlla musal ci naafiq booba gën a booba gën a tàng parce que kal bi nekk ci suuf bu mujjee ci suuf foofu lay naafiq yi di nekk parce que naafiq kenn mënu koo classé fenn su demee ci jullit yi jullit la su demee ci yéeféer yi yéeféer la foo koy classé mu zabzabina bayna zalik laa ilaha ulaahi wala ilaha bokkul ci ñee bokkul ci ñi koo foofu rek la mooy yàlla ci moom waaw foofu rek mooy yàlla ci moom kon nit dafay respecter rendez-vous yàlla ne waqaddimu na ngeen jiital li anfusikum ñeel seen bopp ne bismillahi ak ñaan-ñaan gi wattaqullaha na ngeen ragal yàlla mu ngeen xam annakum yéen mulaaquuhu lu mu yàgg-yàgg mulaaquuhu da ngeen dajeek borom bi subhanahu wa te fa yu jaasikum dina leen fay bi amalikum seen jëf yàlla ne wa bashir na nga bégal almumineen jullit yi allazina xam ni taquhu ragal nañ ko nga bégale leen bil jannati ci àjjan yàlla ne wala tajaalu bu leen def allah yàlla ci seen ngiñ urdatan gàllankoor li aymaanikum ngir seen ngiñ li ñuy wax prémédit méditation préméditation gàllankoor li ay maanikum ngir seen giñ antabarru ba du ngeen baaxe du ngeen def mbaax wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa tuslixu ngeen yëwanal bayna naasi diggante nit xam nga urdatan li ay maanikum loolu lu mu doon am nga alal am nga alal te am nga sœur walla frère walla mbokk moo bàyyi tëx walla yu mel noonu koo xam ne yaa koy dimbali ci dépense dafa néew doole nga koy dimbali ci walla xarit walla ku mu mënti doon walla jullit rek yaa ko doon dimbali un jour ngeen xuloo rek nga ne ko billaahi wallaahi tallaahi dootuma la jox dootuma la jox dootuma la dimbali doo giñ ga ma koy léegi ñu suñ demee ba defoo ko ñu ñëw nee la bu naam dañoo bëgg nga dimbali diw sa mbokk la nga ne billaahi man man kay bëgg naa ko dimbali mais demaa giñoon mooy indi nga gàllankoor bi moom li taxoon nga giñ pour def loolu gàllankoor damaa giñoon duutuma ko dimbali kon duma ko mën a dimbali parce que giñoon naa ko loolu bu leen def loolu dégg nga wax ji loolu mooy laa tajaalullaha urdatan li aymanikum ah yow yaa giñoon billaahi wallaahi wa tallaahi yow dootula ma dootuma la jëndal ceeb mukk te nga xam li tax nga def ko su ëllëgee soo ko bëggee jëndal ceeb nga ne man dama giñoon te ku giñ ku giñ ci daal def ko da tiñu te xam nga tëñu xam nga tëñu waaw xam moo ko waaye laaj ma ko rek ma wala tëñu <laughs> tëñu mooy nga giñ billaahi du ma dem dakaar duma dem billaahi wallaahi wa tey du dem Dakar nga toog balaa ngoon rek sa benn xarit ñëw fi taal ba oto bu neex bu climat yi ma ne ko kaay gunge ma euh, place de l'indépendance nga ne non man sawaruma waaye ma ne kaay dem kaay rek mu mu yóbbul tu yaaw yaa gi ñoon doo dem Dakar te demoo daanu nga da def kafaar est-ce que comprendre waa kay déedéet loolu lañ la tere giñ doo def lu baax déedéet soo giñee doo def lu baax <laughs> loolu ngiñ loolu du ta du tus dañ lay obligé nga def ba baas ba def lu baax moo ëpp giñ ci lu mu def lu baax waaw kay moo kay moo tax yàlla ne wala tajaalullah urdatan li aymaanikum bu leen def ngiñik yàlla urdatan gàllankoor illa maani atan li aymaanikum ngir seen ngiñ dégg an tabarru ba yee an la tabarru ba du ngeen def mbaax wattaqu ngeen ragal yàlla wa tuslihu ngeen yëwanal bayna naas diggante nit ñi dégg nga wallaahu yàlla samiun aji dégg la bi ak bi aqwaalikum ci seen wax waaye alimun aji xam la bi ah bi ahwaalikum ci seen jëf laa yuwaaxiskumullah yàlla du leen jàppee billax wi fi aymaanikum billax wi mooy li nga xam ne euh, sabqu lisaan la sa li sa làmmiñ moo ko tudd te yow yéene ko nga giñ ci loo xam ne dangaa juum rek wala de sa làmmiñ moo ci jiitu rek te waaye yéene ko dégg nga dégg kilifine walakin li fi ne yàlla dina leen jàppe bi maa ci la nga xam ne kasabat faggu na ko qulubukum qulubukum seen xol minal imaani ci ngeen ngeen ngiñ isa xanastum su ngeen demee ba tëñ wallaahu yàlla xafuurun jéggalaakoon la liman kaana min allaxwi waaye xaliimun aji deneerlu la ah bi taaxiiril uqubati an mustaxiqiha waaw yàlla ku yéex ku yéexe ah, isaab ku yéexe mbugal ki nga xam ne ku yelloo mbugal yàlla yéex day day yéexe mbugal la moom bokk na ci ngëneel yàlla boroom so li lesine gaa yi nga xam ne ñeel na li nga gaa yi nga xam ne yuuluuna min nisaihim na ñu ngi giñ min nisaihim ci seen soxna yi giñ doo dootuñu ànd ak ñoom maata maana giñ sa soxna waat naa ko ci yàlla billaahi wallaahi wa dootuma ànd ak yow maanaam ma dootuma sëy ak yow ñooñ tarabasu nañu xaar arbaatu ashhurin ñeenti weer fa in faa u suñ delloo fiha ci ndaw si aw baadaha wàlla ginnaaw la anil yamini ci ngiñ li ilal wat ñu jëm ci ànd ak ndaw si fa inna allah yàlla xafuurun jéggalaakoon la rahim aji yërëm bihim ci ñoom dégg waaye dafay def kafaar waa in azamu suñu euh, nammee nag euh, euh, dogoo nag attalaaqi fase dëng fa inna allah yàlla samiun aji dégg la li qawlihim seen wax waaye alimun aji xam la bi azmihim ci seen dogo wal mutallaqaat jigéen ñi ñi fase yatarabbas na nañu muñandiko fi anfusihinna ci seen bopp ñu bañ bañ leen tak salaasata quruin salaasata quruin salaasata quruin nañu xaar ñetti weex weex wala ñett mbaax wala ñett indisposé hmm? jigen joo xamne dafa tollu ci gis mbaax kooku suñ ko da fay indisposer trois fois trois fois su fekkee né fiñ ko faté fase moy fi mu mën a mën a mën a mën a kii fi mu mën a jàppee idd mu mën a tàmbalee jàppee idd nga wax ji su ko défé moy talaq sunna passé sunna légui légui ngay ta eh, eh, eh, xul ak sa jabar nga fase ko ñu ne def ko fase faseb sunna te ñu xam lan mooy faseb sunna loolu paseb yar la tudd waaye du paseb sunna paseb yar nga fase ko benn yoon mu dem ñibbi seen kër ñu waxtaan ba jubo mu del siwaat ma yaa ngi koy yar pour mu xam ne su ko defatee mën nga ko wàcc yaa ngi ko yar su ñëwee su demee ba foofu xamu jigéen dara doyul ko doy ko lu dul néegam néegam rek la xaj su demee delluwaat kër baayam nag muy xat-xatloo ak i yi ak i magam yi ak ak i jabaru magam yi ci ne kii su dellusiwaat su demee ba sonn léeg-léeg ñu ñu jéppi ko ci léeg-léeg ñu ko ciibatu su demee ba sonn suuf su ñëwaatee si néegam dana réglé dina xam ne fii la moom loolu mooy passé yar ah waaye day conté day compté parce que moom heure boo fasee compté compté na soo doon kaf dégg la soo su nekkee dégg dégg la parce que amul kaf su ko defee li tax nga def ko pour su demee ba ñibbi li mu doon am ci néegam su ko amulee hmm, ba dem ba sonn su ñëwaatee dana réglé da xam ne néegam rek la xaj loolu mooy pasub yar paseb yar paseb sunna nag mooy ndaw soo xam ne dafay indisposé ba set dégg ba set nga fase ko te bi nga koy fase àndu leen ci set gi dégg léegi su ko defee nag su ko defee mu dem su demee walla su toogee su demee ba gisaat mbaax dafay compter benn mu demaat ba set su gisaatee mun konte ñaar ci diggante bi fekk demul ba ci ñetteel bi ah, soo ko ñëwee jël si da nga koy kii ngeen ngeen juboo waxtaan juboo da koy delloo si rek waaye amul takkaat ndax eddeme motogul motogul ñett su demee ba xase na bu dugg ci ñetteel bi nag ah, bu boobaa nag soo ñëwaatee après ñetteel bi ah, dañuy dañuy dañuy dañuy takkaat dañuy takkaat parce que edd bi jeex na kooku mooy ki nga xam ne dafay gis mbaax dafa toll ci gis mbaax hmm? ki nga xamee ne weesu na gis mbaax ndax mageel li ñuy wax ménopause wàll moom xaleel la ba xam ne mu àggagul ci gis mbaax ñooñ daal duñu gis deret ñooñ suñ leen fase dañuy toog ñetti weer bokkuñu du jigéen ñëpp ay toog ñetti weer du jigéen ñépp mooy ñooy toog salaasat quruun mooy ñetti weex weex ñii am ñii gis deret ñetti mbaax lañuy toog mu jeex ñi nga xame ne dañuy gis deret ñetti euh, ñi ñi dul gis deret ndax màggeel walla xaleel ñooñu ñetti weer lañuy toog hmm. Hmm. Hmm? moom no boobu boobu du compter waaw da ngeen ànd ànd ngeen mu gis mbaax mu gis mbaax kii kii ànd ngeen te kii nu mu tëdd ngeen ngeen ngeen nga fase ko tey suba rek mu gis mbaax mbaax boobu kenn du ko compter waaw beneen bi deuxième bi ci lay tàmbali موتاه يا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يو يو النبي عليه الصلاه والسلام فاذا طلقتم النساء سنين فاسي جيجين فطلقوهن نانين فاسي لعدتهن تي سين عد خمو لول سوكو واخي دوكو دي لعدتهن في ني تامبالي عد ني ورا تامبالي عد nangeen leen fase ci laab laab goo xam ne ànduleen ak ñoom ci laab googu hmm? yàlla ne wala yaxillu daw dagan lahun na ñeel jigéen ñi an yaktum nañu nëbb maa xalaqa allahu fi arxaamihinna li yàlla bind ci seen ruum yi seen biir yi jigéen ko suñ ko fase te mu xam ne ëmb dafa ëmb na wane ne carrément que dama ëmb maa ngi ah, gisuma póot du noonu fase nañ ma waaye gisuma póot loolu gën a leer wala kat maa ngi am trois mois wala maa ngi am quatre mois na leer in kunna ndeem nekk nekk ngeen yéen jigéen ñi ji ñoom jigéen ñi yu min na ñuy gëm billaahi ci yàlla wal yawmil axir ak bés penc wa bu ulatuhunna seen boroom kër yi a xaqu ñoom ñoo gën a yey bi raddihi ci delloo leen dégg nga wala ni doonte bañ nañu ñoom ñoo gën a yey delloo leen jigéen joo xam ne yaa ko fase mu dem seen kër toog nit ñi daje waxtaan ba pare ñu ne na nañ dem fayli ko du noonu fayli ko su ñu demee man danaa fa wax loo xam ne yónni wuñ ma gis ngir lu baax ah walla ma engage fa loo xam ne boroom yónni wu ma loolu du noonu ba bu ulóote xën na seen jëkkër yi axaqu bi raddi hin ñoom ñoo koy gën a yeye te dalloo leen bu benn la parce que jëkkër ji su demee moo ko fase mu dem su demee moom li mu fay wax ba ndaw si ñëw moo gën a dëgër ak li may li ma fay wax man su waa ji demee toogloo baayam toogloo toogloo ko ma ne ka maa ko tooñ walla man kat li ma fi indi li tax mu dem loolu incha allah suñu delluwaat dootoo dootu leen ko dégg bo bi may dee ah jël fa engagement loolu moo gën a wër noonu ndaw si itam loolu li ma defoon ba ñu ma ba ma maa ngi lay ñaan dootuma ko def ba abadal abida jëggal ma dootuma ko def moom moom ma gën a yelloo wax ko ku ñu ku ñu waxal ko ko du noonu am ngeen gémmiñ yéen a jëloon engagement jëlal engagement lii dootuma ko defat loolu moo gën a wér kon ñu axaqu bi ñoom ñoo gën a yàlla ñu delloo su fekkee ne beneen ana kii bi ki nga xam ne danga fas da nga ko fase ba eddam jeex ngay ñëw di labat dëng ak keneen ñëw ba seen jëkkër yi axaqu bi raddihin ñoom ñoo gën a yeeyo delloo leen lu bon bon xamante ngeen amaan ngeen ay teraanga am xam nga lu muy bañ xam nga lu muy nangu du gan ci yow waaye keneen su ñëwee gan lay doon kon kii moo li nga xamal kii xamala koo keneen waaw ah, kay yépp mu ngi ci ah in yuridu ndeem namm nañu islaaxan yéwénal defar بينهما سين ديغانتي دغ واي نيلي نك وهذا في طلاق الرجعي في طلاق الرجعي لا نكوي واخ آه. رجعي موي passé bo xamné mën nga delloo si borom loolu moy raji'i passé dafa am ay façon façon yu bari dafa am raji dafa am bain. dafa am bat dafa am yenen façon dafa am khul yoyep ci pa façon fase yi la bok dégg nga waaw kay bu ah en tout cas lépp fase la lépp fase la dama ne fase kafaam dégg la déggam dégg la soo demoon mandi ji mandi ñëw ne sa jaawar fase naa la ndax danga mel di ne fase naa ko te mu am ay seede fase bi tàbbi na ah ku ko ko def sa xel boobu di dem yow yaa dem jëndi ko benn butéel la te fale ci juyeer bi nga jënd ko ñëw indi naan ko pour loolu dof ba tax ngay fase hmm? lu ci yooni si sari ñàkk nga rek hmm? wala xun na ñeel na ñi jigéen ñi itam alal azwaaj seen seen borom kër yi mislu lazi lu mel ni loolu war góor ñi ci ñoom mooy fay li jë dëng min al ci ay aq bil maaruufi ci njëkk charan dëng ci sharia min xusnil asharati wa tarki daraari wa nawi zalik ñoom itam am nañu aq ci seen borom kër yi ci sharia nga ànd ak seen borom kër ànd ak ñoom àndin wu rafet te bàyyi leen lor bàyyi di leen lor wa naxwi zalik ak lu nuroog moom jigéen itam doo ko yor di ko lor rek hmm? sonal ko sonal ko sonal ko fase ko su demee nga dem fayli ko ñëwaat encore te ko sonal la dara wala diraam sëy defuñ ko pour lore hmm? wali rijaali ñeel na góor ñi alayhinna ci kaw jigéen ñi darajatun daraje ah fadilatun ngéneel fi lxaqi fi lxaqi fi xaqi ci aq min wujubi daatihinna lahum am na ci ñoom àq àq boo xam ne war nañu leen topp ñoom itam jigéen ñi war nañ topp seen boroom kër yi ngir ñoom ñoom ñoo yore dépense yi ñoom ñoo yore can li waaye du jigéen ñi kon ki yor can ji yor dépense bi kooku itam war nañ ko topp wallaahu yàlla azizun aji not la ci nguuram xakiimun ay aji tëral atte fi mu yàlla tëdd kon ñu teg foofu suñu baaraam di jéggulu di ñaan yàlla lépp lu ci normal te baax yàlla lépp loo xam ne juum nañ ci nga xam ne nit moo motul eh, ñàkk xam-xam ak fasaa waaye eh, ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamne di ñu ngi seetaan ci Hann TV di ànd ak ñun ci tafsir bi di len sante di len gëreem di len ñaanal yàlla tawfiq ak taysir ñaan yàlla yàlla def ci ñun deug ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh